jëf yore sa paanu yam bu jël jëñax ci sagron lal denc ko fa bu nuppi di lijjanti kopp yambu jàmbur journal La bi nee nañu moom la ma Macky Sall di def tribune yéenekaay bi keroog bi ko syndicat yi doon ko jox seeni cahier de doléance ne woon ca ndajama maire bu fi def lu waroo ak li règlement bi code bi santaane dinañu la folli yéenekaay bi ne nañu xanaa bi muy wax loolee moom Macky Sall dafa fàtte woon tooxi doon tojaanga yu rëy yi ci ak nguuram nekk ci nguuram la gis ay nit ñu taqal ba ñu taq ripp ci scandale bu am ca Prodac te mujjuñu ak ñoom fenn fu dul jox leen ay cër yu gën a kawe ci yaa ngi fi rapport OFNAC yaa ngi fi rapport scientifique yaa ngi fi ñii ci tudd ñoo ngi fi te ba léegi tribune nañu li fi newoon jugu fi ñu juge fa dem ci Sud Quotidien mi ñu xëy xamal ne waxam jooje moom Macky Sall bari na ay réero ci kawi yu mu Abbas Fall mi premier adjoint moom Macky Sall kenn la dul folli Birahim Seck bu Forum Civil ni ñu ca wet ga violé ay loi mënuta weesu bàyyi directeur général ARMP ca bopp ARMP violé ay loi cim réew mënuta weesu bàyyi Doudou Ndir muy wéy di jiite commission électorale nationale autonome ba léegi porte-parole LD di Moussa Sarr xamal waa Sud Quotidien ne Macky Sall li wax du ay menace ay rappel la def ngir nit ñi respecté loi yi docteur Malick Diop bu AFP ne te sax day baax bu ñu ay nit yees dénk leen ay collectivité territoriale ñu leen di fàttali régal yi ñu war a ñu dox dem ci Abbas Fall journal bi nañu Abbas ma ngay défier Macky nee na kenn du fi foll kenn fi ñu nekk ni kay sak folleeku la lijjanti moo gën a jekk moo gën a jaadu te moo gën a yomb 2024 xaar askan def signature finale ñu folli la ki ñu bari jàpp ne moom waxi Macky ji di Barthélemy Diaz Vox Populi nee nañu tey ji la fas tontu Macky ab conférence de presse di jaanu taskatu xabaar yi la fas bés bi le jour nañu cay Macky ak Barthélemy Diaz Barthélemy dafa gis boppam ci waxi Macky ji ba tax mu ne da koy tontu ñeneen ñu toll ci tontonteeg defante di Souleymane Teliko ak Madiambal Diagne suur suwaa nañu seen cooli procureur général dugg na ci li ko tëjee nañu ju dañu koo convoqué démb moom ak Madiambal Diagne ca chambre civile commerciale bu cour suprême Madiambal demoon na waaye Teliko teewu fa woon juróom-benni avocat ñoo ko fa teewaloon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru déposé nañu seeni parrainage démb source waa ne ko Aminata Touré ak Benoît Sambou ñoo ko yóbbu woon liste sub 55 328 ñu joxe ci turu parti socialiste ci turu AFP ak ci turu APR journal Les Échos wax ñu ne état major politique yi ñoo ngi seen bopp bu baax a baax ngir waajal wote député yi waa Benno Bokk Yaakaar déposé nañu seeni parrainage démb ñoom nag ñoo ñi njëkk a déposé waaye yeewi askan joxe seenub caution bu nuppi di waajal seeni investiture waa ngir ànd ak moom ci di ànd bi yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ngir taxawal coalition bu mag yéenekaay bi nee nañu dafa laj mujjuta sotti lu sotti am borom borom réew mi di Macky Sall l'observateur mi ngi ñuy xamal ne commandé na ay ngànnaay yu bare bari milliards yu takku la génnee ngir wutal ci l'armée bi ay gilet pare-balles ay patrouille ak i avion jël avion dem aji màkka la Sénégal nee nañu du yomb ren ji kilifa yu Arabie Saoudite di ñoo laxas jaan ci aji màkk gi ubbil juróom-benn fukki ak juróom maanaam 65 ans du dugg Makka Makka sori na nañu dem Tiwaawun Pël ànd ak libération mi xëyaat tey ci soxna Marème waar mi ñu fekkoon mu faatu këram kero korité autopsie bi ñu def ci ab néewum yéenekaay bi nee nañu dëggal na yu yéeme te doy waar yu am ci faatuk Marème waar tolloon ci juróom-benn fukkeet libération nee nañu autopsie ba wane ne dañu ko sàkku ay yooni yoon laata ñu koy faat